asalaamaaleykum mbokk mbokk Thiel mbokk département de donc damay jiitu di baalu ak sama papa ak sama nijaay ñi nga xam ne ñu ngi fii ci marché bi di liggéey seen liggéey xam naa ñu ñëw fekk leen fii mënees naa nekk ñu xaw leen déranger maa ngi koy wax léegi aussi hôpital bi soriwu fi centre de santé bi donc mën na am ñu déranger ay nit ñu ngi ci jégalu bu baaxu baax donc dañuy jiitu di di nuyu population département de dañ fi ñëwoon tey pour waxtaan ak waa Thiel waxtaan ak département de li ñuy def nii nag mënoon nañ dem toog télé wax ko mu yem fa waaye nag dañoo tànn ñëw toog fii ci biir keppaaru Thiel wax ko ñëpp ñëpp dégguñu parce que dañ naan boo demee nekk waxambaane bu ndaw nga dem ba commencé am 40 nga nekk am mbir di ci yëngu pendant fukki at war nañ gëm ni li nga nekk nekkatul ay caaxaan ci donc damay nuyu le département de Linguère góor jigéen mag ndaw di jiital ci nuyu bi ñi nga xam ni ay responsable lañ ñu bokk ak ñoom Benno Bokk Yaakaar jël nuyoo bi jaarale ko ci sama grand frère sama ministre Samba Ndiobène mu nuyul ma ñëpp ñi nga xam ne ay responsable lañ ci biir parti bi nekk au niveau du département de Linguère ñoom Aly Ngouille ñoom maître Ka les députés les hauts conseillers mais également jël nuyoo teg ko ci maire Samba Hawa di nuyu les 19 maires du département de Linguère su ma cité damay juum maa ngi nuyu le maire de Gassane Logou maa ngi nuyu Mahamka de Thiarny maa ngi nuyu Bàcc Galel de Tessikere maa ngi nuyu ñëpp ku lim juum maa ngi nuyu sama frère Idrissa Diop de Labgar donc maa ngi nuyu le ministre Aliou Ndiaye maire de Linguère di nuyu Mawa Ndiaye di nuyu sama mag wala sama sama nijaay Aboubacry Sow maa ngi nuyu Biram Ba donc su ma limee rek juum donc dama fi ñëw tey pour tënk sama wax ci ñetti poñ benn poñ bi mooy sama yëngu-yëngu ak sama engagement ci biir Benno Bokk Yaakaar loo xam ne ñu ngi ko door depuis 2009 beneen poñ bi mooy situation fi àddina bi toll tey ak ñun ban taxawaay lañ war a am par rapport ak situation boobu mais ñu mujj jeexal ci suñ position ak suñu gis-gis par rapport ak élection locale bi nga xam ne ñu ngi ko war a def ci 23 janvier 2022 donc dama waxoon ci njëlbeen ne fi toog fii ci keppaar bi te suñu xel ñëwul ci ay mag ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam tabax nañ Jolof cité naa ci ñu mel ni ay ñoom Maguette Lo ñoom Daoud Sow ñoom Djibo sama ñoom Pape Daoud Sylla Sam Billel Al Aïssat et cetera et cetera lu tax may loolu parce que soo gisee tey ñu am fit wala ñu am xel toog di wax politique walla di ko dox c'est parce que dafa am ay mag ñu fi nekkoon am lu ñu fi tabax am lu baax lu ñu fi liggéey ci biir Jolof donc ñu ngi leen di ñaanal fi nekk yàlla na gën fi ñu jóge donc maa ngi daa wax léegi ci poñ bu njëkk bi tey jii wàllu sécurité nekk na lu am solo ci suñ dundin ku wax sécurité wax waxu terrorisme wax waxu affaire coup d'état wax-wax affaire yëngu-yëngu ci ay biir société quelques weer ci ginnaaw gis nañ biir Sénégal am ay manifestation yu fi am ba nar dugal Sénégal ci doxa doonu boo xam ne Sénégal mosuñ ko xam loolu lu muy tekki ak nit foo mënti nekk ak foo mënti yëngu danañu dañu war a xam ne sécurité ak jàmm dafa nekk loo xam nit war na ci bàyyi xelam parce que soo demee ci dëkk yoo xam ne tey ay guerre ñu fa nit ñi bàyyi nañ seeni kër mënatuñ ci dëkk ñu ci àll bi di wut lu ñu lekk ak lu naan ak fu ñu dëkk am na fi à côté de chez nous au Mali Guinée ñu wax ay wax coup d'état ay forces militaires yu jóg nangu pouvoir ci ay dëkk yoo xam ne dangay fekk ay jullit ak ay chrétien di xeex nga fekk ñu naan pël bi bambara bi ñun yàlla musal nañu Sénégal loolu amu fi moo tax ci suñu biir ak suñu yëngu-yëngu ak suñu wax surtout bu fekkee ne ay nit ñuy déglu la lu ñuy def guddi bëccëg war nañ bàyyi suñu xel senegal réewu jàmm la ak lu nit mënta bëgg ci àdduna jàmm boobu war nañ ko sàmm. beneen point bi ma wàllu wér-gu-yaram seetlu nañ ci weer yu at suñu ginnaaw am na benn feebar bu xaw a yéeme bu xaw a kéemaane bu ñëw Sénégal jaxase niñ doon dundee yaakaar naa gouvernement Sénégal. def ci ay effort yu mucc ayib pour que feebar bi bañ ñoo lor c'est vrai que def na ay ravage waaye wax dëgg yàlla soo xoolee lu xew ci yeneen réew yi day wane ne Sénégal à travers le ministre la santé le président de la république def nañ ci ay efforts yu mucc ayib moo tax tey peut-être ñu mën a toog fii di wax li ñuy wax ni su ma jógee foofu ma wax wàllu wàllu jeunesse wàllu ndaw ni Afrique dafa nekk continent boo xam ne. majorité population bi ay ndaw lañ ça dire que politique boo mënti am ci àdduna bi te jëloon ndaw ñi teg ngeen ci kanam dana am lu la rëcc parce que tout simplement population bi ay ndaw ñoo ci ëpp te ñu ne ndaw mooy doole donc moo tax lépp lu ñuy def lépp lu ñuy wax war nañ ci mën a boole jeunes yi war nañ leen mën mettre au devant la scène war nañ xam ne aussi nit koo gis mu toog am na benn force ak benn puissance bu nekk au fond de lui boo xam ni suñ ci bàyyiwul xel wala expert woon que dans le dans le bon sens ci lu baax ya mën na dem ci leneen la preuve ndaw sa ko jàppul yóbbu ko école mu jàng wala nga yóbbu ko daara wala nga jox ko métier nga bàyyi ko mu toog deful dara yàlla mën na ko bamax ci leneen su loolu weesoo maa ngi wax ci njëlbeen 2011 la ma yàlla may chance ma toog ak président de la république jaarale ko ci Biram Ngesa mu may dégg maa ngi fàttaliku boobu bokk na ci poñ yi nga xam ne tegoon naa ko sama loxo may wax waxu Ranch de Dolly di wax ni coin la bu ñu war a bàyyi xel donc su yàlla defee ñu nekk ay ndaw gën président de la république ànd ak moom fukki at ci biir liggéeyam ñu jël Ranch de Dolly defar ko ba mu ba mu mel nu mu meloon avant defar ay forage clôturé ko loolu dañ ciy sant yàlla mais également su yàlla defee ñu gis président de la république bëgg ko topp ko di daw ci ginnaawam mu defar ay piste indi biir Thiel mu def ko ci biir département Linguère fu nekk mais également xëcc ay courant indi lu mel ni PUDC Promoville couverture maladie universelle dañuy sant yàlla parce que yàlla mënoon nañu ba ci leneen donc yàlla dafa def boole ñi ci ñu nga xam ne dañoo teel a gëm président de la république su loolu weesoo nee naa fukki attaques yi nii ñu ngi topp Benno Bokk Yaakaar topp président de la république fukki at a ngi nii également ñu yëngu ci suñu liggéey bopp loo xam ne ci suñu jàng lañ ko jëlee di sant waajur yi au passage am benn expertise ak benn xam-xam boo xam yàlla may nañu ko ñu koy liggéey di ci suturlu mais également muy xam-xam boo xam ne nii yaakaar naa ni amul benn dëkk bu mu yóbbuwul ci biir Afrique mais également mu yóbbu ci yeneen dëkk en Europe maa ngi koy wax léegi sa doom mën nga ko yàq yar nga koy xool fi mu toll woon bi muy am dix ans waaye nga geestu fekk am na lu yàlla sol ci moom yàlla boole nañu ci ñi nga xam ne dañu nekk Sénégal dëkk bi Sénégal am benn expertise bu leen yàlla may ñoom ci sant yàlla bu baax parce que fierté la également parce que jóge ci école bii ngay gis di xëy di jënd caab ci ñoom sama yaay kenn génn dem mbolteen nga yendu foofu parfois nga dem ndaraame nga génn fii nga dem Linguère bokk parmi les meilleurs élèves du lycée Alboury Ndiaye terminal S1 2003 dem université Cheikh Anta Diop ma def fa sept ans yoo xam ne je pense que li ma ci waroon def def naa ko ma génn yàlla dimbale ma suturaal ma dugal ma ci créneau boo xam ne yàlla may ma expertise ma ciy liggéey di ci suturlu mais également di ci di ci di ci liggéey dans la sous-région sant yàlla la donc c'est pour vous dire soo amee 40 ans nga yëngu ci mbir yëngu ci fukki at waaye nag xanaa nag soo xëyul benn jour nga ne man nag war naa soxla dara xanaa yaa ngi bëgg ñàkk fayda nag wax dëgg yàlla donc mën nañ nekk ay xale mais fi ñu toll tey wax dëgg yàlla ci biir benn bokk yaakaar yaakaar nañ ni def nañ ci liggéey boo xam ne bii am nañ droit ak sañ-sañ bi ne biir benn bokk yaakaar am nañ ci gis-gis te bëgg nañ ngir gën a geestu les jeunes cadres yi nga xam ne dañoo nekk ci parti bi ngir geestu jeunesse di Jolof mais ngir également rétablir benn déséquilibre boo xam ne mën naa wax ne am na dans le département de de Linguère en termes de répartition de responsabilité politique bëgg nañ bëgg nañ la population du Jolof coalition benn Bokk Yaakaar les responsables politiques qui sont dans le département de Linguère ñu may ñu kàddu ak loxo pour ñu diriger liste départementale bu coalition Benno Bokk Yaakaar pour ne pas dañu am fas yéene ak bëgg-bëgg pour nekk président conseil départemental bu Linguère loolu bëgg-bëgg la moo tax mënoon nañ ko wax Dakar na nañ ko wax Linguère mënoon nañu wax Daara mais fii ci biir Thiel la ñu ñëw waxee ko ci kanam mbokk yi parce que nag fii la war a commencer loolu nag ñu ngi ciy woo les 19 communes du département Linguère te bàyyiwuñ kenn ñu ngi ciy woo également ñi nga xam ne ay mag lañ ay kilifa lañ te yàlla dénk leen ay responsabilité ci biir parti bi ñu ngi ciy woo également suñu naataango yi nga xam ne ils sont au niveau daal nekk ay directeur nekk ay député nekk ay haut conseiller et cetera su ma wàccee ci biir commune Thiel également occasion la pour man ma tàllal suma loxo ñi nga xam ne dañu nekk fii di yëngatu ci politique à commencer par le maire de la commune Samba que je salue au passage son adjoint Mor Top que je salue au passage son deuxième adjoint Magat Kaw Magat wax naa ko léegi donc mën naa lim juum mais ñun ñëpp xamante nañ Maham Faye Silat mu ngi fii docteur Ba mu ngi fi Ablaye Pamane mu ngi fi sama frère Daouda Ba bu nekk Patacour mu ngi fi su ma leen limee damay juum mais li ma leen bëgg wax rek mooy que kenn ku nekk ci ñun am na droit ne bëgg laa lii mais il est temps ñun waa commune de Thiel ñu bàyyi xiiroo bi ak ŋaayo bi ñu nekk fii ci biir commune de Thiel di dóoran suñu biir alors que dans le département suñuy morom ak suñuy naataangoo. ñu ngi xeex pour nekk député ñu ngi xeex pour nekk au conseil ñu ngi pour nekk conseil départemental donc maa ngi leen di tàllal sama loxo pour ngeen ñëw ñu waxtaan parce que nag il faut ngeen xam ne élection benn pàcc gañeetul élection parti gañeetul élection soo gisee président Macky Sall bu am xam-xam ak yaatuwaay créé benn coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar depuis bi ñëwee pouvoir ba léegi di ko gérer Ça veut dire qu'il est convaincu et conscient que les élections ne pour plus se par des partis, mais par des grandes coalitions. moo tax ñu war a xam ne également liste coalition Benno Bokk Yaakaar bu Thiel benn nit rek moo ko mën jiite donc ku nekk nag am na droit ne bëgg na waaye nag xam ne kenn mënu ko def moom kese donc waxtaan bi moom alay sago mu am donc tallal naa leen suma loxo en tant que candidat conseil départemental bu Linguère mais maa ngi leen di wax aussi xeebu ma leen waaye nag ki ñuy wax paa bi wax dëgg yàllam tey ci waxtaanu politique moom laa gën a bëri lu ma waxtaanal politique moo tax man man ma féete moom laa désigné comme suma candidat moom laa désigné pour mu nekk mandataire Benno Bokk Yaakaar dans la commune de mais dindiwul dindiwul kenn ku nekk ci ñoom maa ngi koy tàllal sama loxo pour ñu ibbi waxtaan suñu biir parce que nag ku ñuy responsabiliser kenn ci ñun xamu ko moo tax également j'en profite pour lancer un message suma frère sama rakk Khalidou Ba docteur Ba te mu nekk sama àndandoo ci côté Samba Ndiobène dans la commune de Thiel bëgguma sax waxtaan bi yemale ko bi Thiel parce que mënoo wax ne da nga bëgg nekk président conseil départemental bu Linguère ba pare nga bëgg a jël sa waxtaan bi tënk ko biir Thiel mais waxtaan yu mel nii dafa baax ngay leeral ay mbir Khalidou Ba sama mag la parce que bi ma ñëwee Linguère nekk au lycée Alboury moom laa fa fekk ak docteur Ibrahima bi ma ñëwee université ñoom ñoo ma fa jiitu te képp ku ma xam xam na ni man ci biir néegu yaayu Khalidou Ba laa yoroon donc Khalidou c'est mon ami c'est mon frère te wax dëgg yàlla du sama adversaire man tey jii wax dëgg yàlla. conseil départemental bi laa bëgg damaa bëgg mu ñëw jàppale ma wétumaa ngeekoram du ma noonul politique ñeneen ñi nga xam ne aussi dañu fi nekk di yëngatu am nañ ci droit maa ngi leen di tàllal loxo pour ñu ñëw jàppale ma pour le conseil départemental de Linguère mais di tàllal sama loxo les 19 maires du département de Linguère donc je pense que wax ji faramkulaayoo na bu fekkee am na lu ma fàtte maa ngi ciy jégalu bu baax a baax am na loo xam ne nag mënu ma ko ñàkk wax xam nga soo gisee ma am fitu def lii am na fu ma commencé ku ma xam xam na ñan laay àndal sama duggee biir commune de Thiel ngeen baal ma maa ngi leen di gis yéen ñëpp su ma limee damay juum dama bëgg yéen ñëpp ngeen ñëw ñi àndandoo dox lii ñuy dox nii parce que gëm naa ne foofu mooy yoon bi te wax ji nag dafa bëri rek de waaye benn nit mooy jiite liste Thiel benn nit moo koy jiite ñaar nit te gën naa ne aussi loolu sama gëm-gëmu bopp la ku fi indi lu liste opposition doo dem fen yàlla xam na ko loolu laa dem te gën naa ne noonu lay demee donc nañ jiital xel nañ jiital xel jiital xalaat parce que mbir mi du doole mbir mi xel ak xalaat la te beneen affaire bi koo fi bëgg a jëlee te yàlla jëlewu fii du dem wax naa ko aussi ci français li tax li gën a tax man ma ma ma teggi sama tànk ci commune bi dama wuti leneen parce que dama xam ne même su ma yàlla mayoon commune bi tey mënuma tey ci sama toogaay professionnel ak sama liggéey bàyyi liggéey bi ñëw nekk ci commune bi liggéey commune bi. te bugguma jiital leen jël commune bi pare di ko dénkaani parce que commune nekkul lu ñuy traité à distance kuy gérer commune xam na commune lu muy doxee kuy ngeen def foog nga nekk fa ku am ku am faatu foog nga nekk je que gestion de commune dafa demander benn proximité boo xam ne mënoo ko gérer je suis dans une réunion dama am séminaire non c'est pas possible beneen point bi wax naa ko nee dama fas yéene woo sama waa mbokk yi waa Thiel ñu nekk ay classe émergente politique ku ñu bàyyi suñu xeex bi biir Thiel dem xeex yi feneen wuti dara ci biir département bi indil dara waa Thiel